ñaar fukk ak juróom ñaar yuusufa ak ndaje mi
mbokk yi ñuy déglu asalaamaaleykum nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw. am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci ñaari émission yu weesu nu ngi doon jàng nettale bu neex ci mbirum yuusufa doomu yanqoba tey ji nag fas nanu yéene àggale nettalib yuusufa te àgg ci mujj xaaj bi jëkk ci tawret di téereb njalben ga gisoon nanu ba noppi ne yanqoba sëtu ibrahima amoon na fukki doom yu góor ak ñaar yuusufa moo doon fukkeelu doom ji ak benn ñoom ñépp ñu ngi dëkkoon ci réewum kanaan réew mi nga xam ne moom la yàlla dige woon jox ko askanu ibrahima isaaxa ak yanqoba bi yuusufa dee waxambaane nag dafa géntoon ni ko ay magam naroon a sujjóotale benn bis waaye magi yuusufa añaane ko ak i géntam te ñu jaay ko nib jaam mu jëm réewum misira waaye yàlla génne yuusufa ci coonoom yépp may ko xel ngir mu faram fànce géntu firawna buuru misira te yëgle xiif bu metti bi naroon a daj réew ma diirub juróom-ñaari at loolo taxoon nag firawna fal yuusufa mu nekk kilifak réewu misira mépp gannaaw ba juróom ñaari ati naataanga ya jeexee nag gisoon nanu ni xiif bi yuusufa yëgle woon tàbbee ci biir misira ak réewum kanaan mépp waaye ci réewum misira dencoon nañu pepp mu bare bare ndax yiw ak xel mi yàlla soloon ci yuusufa bi yanqoba déggee ne misira am na dugub mu yebal ca fukki magi yuusufa ya ngir ñu jënd ci waaye boolewul ak ñoom bensamen rakku yuusufa ngir ragal musiba gaar ko gannaaw loolu nag gisoon nanu ni fukki magi yuusufa ya agsee misira su jëtal seen rakk yuusufa mu méngook la mu géntoon bu yàgg yuusufa moom xàmme woon na ay magam waaye ñoom xàmmewuñu ko ndaxte gisuñu ko woon lu ëpp ñaar fukki at te ci seen xalaat yuusufa nekkatul woon sax tey ji nag dinanu àggale nettalib yuusufa ba gis ni mu xàmmee ko ay magam wante dinanu gis ne yuusufa feeñuwul woon ay mbokkam ci saasi ndaxte fasoon na yéene nattu leen jëkk ba xam ndax seen xol yu dëng te soxor soppeeku nañu wala déet looloo tax mbind mi ne yuusufa gis ay magam xàmmee leen waaye mu mel ni ku leen xàmmeewul di wax ak ñoom ci kàddu yu dëgër ne leen fu ngeen jóge ñu tontu ko nu ngi jóge réewum kanaan ngir jënd ci ab dund noonu yuusufa laajte lu bare bare mu jiiñ leen ay yëddukat tëj leen kaso yuusufa dafa bëggoon ñu xalaat tuuti ci seen dund ak fu ñu toll fa kanam yàlla ci seeni biir xol ñetti fan gannaaw ga nag yuusufa daldi leen bàyyi ñu ñibbi waaye mu denc kenn ci ñoom ci kaso bi ne ñenn ñi bu ñu dellu ci misira te indaale wuñu seen rakk bensamen seen caatu baay gannaaw ay weeri weer magi yuusufa dellu ci misira indaale bensamen seen rakk bi ñu agsee yuusufa di boroom réew ma dugal leen ci këram ba tax ñu tiit lool yuusufa defal leen xew mu mag toogloo leen tàmbale ci ki gën a mag ba ci ki gën a ndaw jox leen ay ñam ci taabalam benn semaine moom amoon na juróomi yoon lu ëpp li ñeneen ñi amoon yuusufa doon na nattu ay magam ba gis ndax dinañu iñaane benn semaine ni ñu ko iñaane woon moom wante kenn ci ñoom wonul ak kiñaan seen rakk benn semaine gannaaw xew ma nag yuusufa sant ay surgaam ñu duy saakuy mbokkam ak dugub te nëbb kaasam ci saaku benn semaine gannaaw ba mbokk yuusufa deme yuusufa yónni bëkk néegam mu topp leen jiiñ leen càcc bi leen bëkk néeg ba dabe mu ne leen lu tax ngeen faye lu baax lu bon ndax jëlu leen kaas bi sama borom di naane ñu tontu ko ne jëlunu ko de na ki nga fekk kaas bi ci moom dee te nun ci sunu bopp nu nekk seeni jaam bëkk neeg bi ne ku ma fekk kaas bi ci moom dina nekk sama jaam te yéen ñi ci des mën ngeen dem seen yoon bi bëkk néeg ba seetee saaku yépp tàmbalee ci saaku ki gën a mag ba ci saaku ki ci gën a ndaw mu fekk kaas ba ci saaku bensamin ci kaw loolu mbokk yusufa ya daldi xotti seeni mbubb dellu ca dëkk ba sujjóot ci kanam yusufa yusufa nag ne leen lu ngeen def ndax dangeen yaakaaroon ne mën ngeen ma nax ci kaw loolu yuda ñeenteelu doomu yankoba ne ko lu nu mën a wax nu nu mën a setale sunu bopp yàlla wone na sunuy moy ak sunuy jubadi nekk nanu say jaam nun ak ki ñu fekk kaas bi ci moom yusufa tontu ne ki ñu fekk kaas bi ci moom dina nekk sama jaam yéen ñi ci des dellu leen ci jàmm ci seen baay noonu yuda jege si yusufa nettaliwaat ko naqar wi baayam amoon ci bàyyi benn semaine mu ànd ak ñoom gannaaw ga yuda ñaan yusufa mu am yërmande bàyyi benn semaine mu ñibbi ci baayam te moom yuda mu des fi nekk jaam ci palaasu benn semaine bi yusufa gisee naqar wi ay magam am ndax seen bàkkaar yi weesu ak yërmande ji ñu am ci seen baay ak seen rak yusufa xam ne ci dëgg-dëgg ay magam rëccu nañu noonu mu xam ne waxtu xàmmee ko ay mbokkam jot na ci loolu mbind mi ne yusufa mënatul woon téye boppam ci kanamu ñi ko wër mu sant ñépp génn lu di li mbokkam yusufa daldi jooy ak baat bu kawe lool te waa këru firaw na yépp dégg nañu ko noonu yusufa wax ak ay mbokkam naan man mii maay yusufa ndax sama baaya ngiy dund ba tey waaye ay magam mënuñu ko tontu ndax njàqare jàpp na leen fa kanamam yusufa dellu ne ay magam jege si leen noonu ñu jege si mu ne leen man maay yusufa seen rakk ji ngeen jaay ñu indi ko misira waaye léegi bu leen ko mettitlu mbaa ngeen naqarlu li ngeen ma jaay ñu indi ma fi ndaxte yàlla moo ma yebal ma jiitu leen ba musal bakkan ñaari at a ngi xiif baa ngi ci réew mi te fii ak juróomi at ci kanam kenn dootul bay kenn dootul góob yàlla dama yebal ma jiitu si leen ngir rawale leen ci biir xettali bu mag ndax seen xeet bañ a saay ci réew mi kon nag du yéena ma fi yebal waaye yàlla moo ma def may xelum firawna di kilifa këram gépp tey boroom misira gépp dellu leen bu gaaw ci sama baay ne ko sa doom yusufa nee na yàlla fal na ma kilifak misira gépp ñëwal fi man ni mu gën a gaawe dinga dëkk ci réewum gosen nekk ci sama xeet yow say doom ak say sët say xar ak say nag ba ci lépp li nga moom dinaa la fa dundal ndaxte des na juróomi ati xiif noonu doo dee yow sa kër ak lépp li nga moom yéen gis ngeen bu leer yéen ak sama rakk benn semaine ne man ci sama bopp maay wax ak yéen nettali leen sama baay sama ndam ci misira ak lépp li ngeen gis te ngeen indi fi sama baay ci ni mu gën a gaawe noonu mu laxasu ci baatu benn semaine rakkam daldi jooy te benn semaine it laxasu ko di jooy mu saafoonteeg magam yépp di jooy ba noppi ay magam diisoo ak moom bi loolu amee mbokki yusufa daldi waaj ngir dellu ci seen kër baay yusufa jox leen ay watiir ci ndigalu firawna jox leen it yóbbal ngir tukki bi nooni magi yusufa jóge réewum misra ñëw réewum kanaan ci yankoba seen baay ñu ne ko yusufa mu ngi dund te mooy kilifak réewum misra mépp waaye yankoba rët ba ne tërit ndaxte gëmu leen noonu ñu nettali ko lépp li yuusufa wax te mu gis watiir yi yuusufa yabal ngir jëlsi ko noonu xelu yankoba seen baay daldi dellusi te yankoba mi ñuy wax israel ne loolu doy na yusufa sama doom mu ngi dund ba tey dinaa dem gis ko bala may dee gannaaw loolu nag mbind bi day nettali ni yankoba ak njabootam toxoo génn réewum kanaan jëm misira yankoba rendi woon na sarax ci yoon wi te yàlla wax ak moom ca béréb boobu ne ko man maay yàlla di sa yàllay bàyyi bul am genn tiit ci dem misira ndaxte dinaa la def foofu xeet wu yaa man ci sama bopp dinaa ànd ak yow misira te ci lu wóor man ci sama bopp maa lay génne te yusufa moo lay doggali gannaaw loolu yankoba ak njabootam toppaat yoon wi ba agsi misira ni mbegu yankoba rëye ci li mu gisaat doomam yusufa gannaaw ay at yu bare yooyu noonu yankoba mi ñuy wax israel ak njabootam gépp daldi sanc ci réew misira ci deewaanu gosen giir fa ba njaboot lu yaa yankoba moom dëkk na fukki at ak juróom ñaar ci réewum misra te àppam toll ci téeméeri at ak ñeen fukk ak juróom ñaar noonu yankoba bàyyu bànni israel faatu wuy ji borom bi ci kaw yusufa ak i mbokkam ak waa misra yépp jooy ko suul ko ca réewum kanaan ca bàmmeelu ibrahima maamam léegi nag nanu dem ba ci saar wu mujj bi ci téereb njaalbeen ga di saar juróom fukk mbind mi nee na bi magi yuusufa gisee ne seen baay dee na ñu ne su yuusufa wëlbatikoo nag ci sunu kaw ba fay nu lu bon lépp li nu ko defoon waaye bi ko yuusufa déggee mu ni leen bu leen am genn tiit ndax may yàlla fexeel ngeen ma lu bon waaye yàlla walbati na ko def ko lu baax ba tëral lii am tey jii di musal mbooloo mu bare kon nag bu leen tiit dara dinaa leen toppatoo yéen ak seeni doom noonu mu defal leen ba seen xol sedd guy bi loolu amee nag yuusufa dëkk misira moom ak kër baayam gépp dund ba am téeméeri at ak fukk am bés yuusufa ne ay magam sama waxtu jege na waaye yàlla dina leen dikkal jële leen ci réew mi yóbbu leen ca réew ma mu digoon ci ngiiñ ibrahima isaaxa ak yanqooba yusufa ne doomi israel yàlla dina leen dikkal waaye giñ leen ne dingeen yóbbu sama yax fu sore ak fii noonu yusufa faatu ci téeméeri atam ak fukk ñu waajal ko ci diw ko ndàbb def ko ci gaal denc ko ci misira amin nii la téereb njaalbeen nga jeexe téere bi ubbi ko nettali lu jëm ci ni yàlla sàkke lépp luy dund dafa uboo nettalib dee baakaaru aadama tax dee law ci nit ñépp bëgg ko wala bañ ko peyug baakaar mooy dee waaw nit ku baax ku mel ni yonente yàlla yuusufa sax dafa wara dee ndaxte moom itam doomu aadama la woon te am na reeni baakaar ci xolam ni nu ko gise woon yuusufa ci ndimbalu yàlla mënoon na musal waa misra ak i mbokkam ngir ñu bañ a dee ak xiif waaye mënu leen woon a musal ci dee ci boppam wante nu ngi sant yàlla ndaxte ci téereb njaal benn ga gisoon nanu it ni yàlla dige woon wàcce ci àddina musalkat bu am doole ngir mu noot dee te goreel doomi aadama ci dooley iblis ak mbugaluk bàkkaar ak tiitaangay dee yow miy déglu tey ndax xam nga musalkat boobu nasaxal dee te feeñal dund gudul jeex gi ci képp ku ko gëm linjil bu sell bi wax na ci moom ne cant ñeel na boroom bi yàllay israel ndaxte wàllu si na mbooloom ba jot leen feeñal nanu musalkat bu am doole ni mu ko yëgle woon bu yàgg jaarale ko ci yonentam yu sell yi amin ci émission bi di ñëw nag bu soobee yàlla dinanu dugg ci ñaareelu téere bi tawret ëmb ñu koy woowe gàddaay ga su fekkee ne am ngeen laaj ci li nu jàng ci téereb njalbeen ga ca ndoorte la ba tey mën ngeen nu bind ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis sunu adresse mooy yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis kon nag nu ngi leen di tàggu ba émission bi ñëw yàlla na leen yàlla barkel te ngeen fàttaliku dëgg gu neex gi nekk ci kàddoom fa bàkkaar bare yiwu yàlla gën faa bare